Luk saar ca jamono jooja buur bu mag bu ñuy wax Auguste joxe ndigal ne na ñépp bindu ji mbindu mooma di mu jëkk ma daje na ak jamono ja Kiriñus nekk boroom réewu Siri noonu ku nekk dem bindu ca sa dëkku cosaan Yuusufa nag daldi jóge Nasaret ca diiwaanu Galile jëm ca diiwaanu Yude ca Betleyem dëkk ba Daawuda cosaanoo ndaxte ci askanu daawuda la bokk mu dem bindu ji ànd ak maryaama jabaram fekk booba maryaama ëmb bi ñu nekkee betleyem waxtu wa mu waree mucc agsi mu tawloo doom ju góor mu laxas ko ci ay laytaay tëral ko ci lekkukaayu jur ga ndaxte xejuñu woon ca dalukaay ba fekk booba amoon na ca gox ba ay sàmm yu daan fanaan ca tool ya di wattu jur ga noonu benn malaakam borom bi feeñu leen ndamu borom bi daldi leer melax wërleen leen tiitaanga ju réy jàpp leen waaye malaaka mi ne leen bu leen tiit ndaxte dama leen di xamal xabaar bu baax buy indi mbég mu réy ci nit ñépp tey jii ca dëkku daawuda ab musalkat juddul na leen fa te mooy almasi bi di boroom bi ci firnde ji ngeen koy xàmmee dingeen gis liir bu ñu laxas ci ay laytaay tëral ko ci lekkukaayu jur bi mu waxee loolu yeneen malaaka yu bari yu jóge asamaan ànd ak moom di sant yàlla naan nañu màggal yàlla ca asamaan su kawe te ci àddina na jàmm ji wàcc ci nit ñi mu nangu ndax yiwoom bi malaaka ya delloo ci asamaan sàmm yi di waxante naan nanu dem boog betlehem seeti la fa xew li nu boroom bi xamal ñu daldi gaawantu dem gis maryaama ak yuusufa ak liir ba ñu tëral ca lekkukaayu jur ga bi ñu leen gisee ñu nettali lañu leen waxoon ca mbirum xale ba ñi dégg li sàmm yi doon wax ñépp daldi waaru lool waaye maryaama moom takkoon na mbir yooyu yépp di ko xalaat ci xolam noonu sàmm ya dellu ca seen jur di màggal yàlla di ko sant ci li ñu déggoon lépp te gis ko ndaxte lépp am na ni ko borom bi waxe woon ba bis ba dellusee jamonoy xarafal xale ba agsi ñu tudde ko yeesu ni ko malaaka ma digle woon laata ko yaayam di ëmb noonu jamono ji ñu leen waroon a sellale agsi ni ko yoonu musaa tërale waajuru yéesu yi daldi koy yóbbu ca dëkku yerusalem ngir sedde ko borom bi ndaxte bind nañu ci yoonu borom bi ne bépp taaw bu góor nañu ko sedde borom bi bi ñu ko yóbboo def nañu itam sarax ni ko yoonu borom bi santaane ñaari pitoxo àll walla ñaari xëtti yu ndaw amoon na ca yerusalem nit ku tudd simeyon nit ku fonkoon yoonu yàlla la te déggal ko doon séentu jamono ji yàlla war a defal bànni israel xel mu sell mi mu ngi ci moom te xamal na ko ne du dee mukk te gisul almase borom bi noonu xelum yàlla daldi yóbbu simeyon ba ca kër yàlla ga bi waajuru yéesu indee xale ba ngir sédde ko yàlla ni ko yoon wi santaane simeyon jël xale bi leewu ko daldi sant yàlla ne borom bi nanga yiwi sa jaam mu noppalu ji ci jàmm ni nga ko waxe ndaxte sama bët tegu na ci mucc gi nga lal xeet yépp seede ko muy leer gi leeral xeet yi di namu israyel say gaay waajuru yeesu yi waaru ci li ñu doon wax ci xale bi noonu simoyon ñaanal leen ba noppi ne maryaama xale bi yàlla ko yónni ngir ñu bari ci israyel daanu te yëkkatiku def na ko it muy firnde ju ñuy weddi xar sa xol ni noonu xalaatin ñu bari feeñ amoon na it te yerusalem yonent bu ñuy wax ana doomu fanuwel mi askanoo ci aseer la woon te ana màggatoon na lool bi mu seyee dëkk na juróom ñaari at ak jëkkëram jëkkër ja gaañu te seyatul léegi amoon na juróom ñett fukki at ak ñeent mi ngi dëkke woon a jaamu yàlla guddi ak bëccëg ca kër yàlla ga di ñaan ak di woor aana yem ca waxi simoyon ya daldi gërëm yàlla tey yëgal mbiri liir ba ñépp di doon séentu jamono ji yàlla war a jot yerusalem bi waajuru yeesu yi matalee seen warugar ci lépp lu yoonu boroom bi santaane woon ñu dellu seen dëkku nasaret te diiwaanu galile xale baa nga doon màgg di dëgër mu fees ak xel te yiwu yàlla ànd ak moom at mu jot nag waajuri yeesu yi daan nañu dem yerusalem ngir màggali bésu jégg ba noonu bi yeesu amee fukki at ak ñaar ñu dem màggal ga ni ñu ko daan defe naka jekk bi màggal ga tase ñu dëpp ñibbi waaye xale ba yeesu des yerusalem te ay waajuram yëguñu ko ñu xalaat ne yéesu dafa àndoon ak ñeneen ñi ñu bokkaloon yoon bi ñu doxee bisub lëmm ñu tàmbali di ko seet ci seen mbokk yi ak seen xame yi bi ñu ko gisul nag ñu daldi dellu yerusalem seeti ko ca gannaaw ëllëg sa ñu fekk ko ca kër yàlla ga mu toog ci jàngalekatu yawut yi di déglu ak di laajte ñépp ñi dégg li mu wax yéemu ci xel mi mu àndal ak ni mu doon tontoo naka la ko waajuram yi gis ñu daldi waaru yaayam ni ko sama doom lu tax nga def nu lii man ak sa baay ñu ngi la doon seet jaaxle lool mu ne leen lu tax ngeen may seet xanaa xamuleen ni dama war a nekk ci sama kër baay waaye xamuñu li kàddoom yi doon tekki noonu yéesu daldi ànd ak ñoom dellu nasaret te déggal ay waajuram fekk yaayam moom takk mbir yooyu yépp ci xolam yéesoo ngi doon màgg ci jëmm tey yokk ci xam-xam te neex yàlla ak nit ñi